dañu war a financement ci wàllu xeex mbas mi nekk ci depuis bientôt juróom ñetti weer ci biir ministère bi nag ñu amoon na créer lu ñuy wax muy observatoire national des sciences technologies et de l'innovation pour xeex feebar bi ñuy wax Covid 19. Nous taxawal juróom-benni groupe thématique groupe bu ci mission boo xam ministre de l'enseignement supérieur xalaat ni chercheurs yi nga xam ni taxaw nañu pour nous ci wàllu xeex mbas soumettre ko ay projet projet yi ñu financer financement bi nag toll ci ñaari téeméeri million ak juróom tey jii financement complementaire la ñu mobiliser ñeent million ak ñett wara ko jox fukki équipe ak benn juróom-ñeenti équipe ñoo des te yaakaar nañ ni ci weer wii ñu jëm dinañ mën a mobiliser un financement jox leen ñëpp ni recherche dafa soxal état du Sénégal ministère bi di ci def remettre un premier lot un premier lot de matériel de laboratoire ñu war ko jox ñetti université muy université Cheikh Anta Diop bu Dakar muy université Ibader Kiam... Thiam bu Thiès muy université du Sine El Hadj Ibrahima Niass mais Nous avons ni yeneen université yi publique ñoom it également moyens yi nga xam ni moom la ñu jàppalee ñetti universités yi ma lem liggéey ñoom it dinañ leen ci boole